sama gal TV bok internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balax di leen balax leen wax ni tey ñu ngi ci Xotaan Sébikotane nag li ñu fi indi mooy seen émission bi nga xam ni mooy autour des débutants ginnaaw internet yi laaj nañ ko di wax kañ ngeen di ñëw ci débutants yi ah xool leen euh, émission bi tàmbale na muy autour des débutants ñu tàmbalee ko nag fii ci Sébikotane bergerie Lamp Fall ñu ngi dugg bergerie Lamp Fall xool sama waay nan lay débuté ak càmmam bu ko defee nag képp koo xam ne yaa ngi débuté bëgg euh, sama gaal jël say début ah ba fa nga jëm ci élevage yàlla baax na euh, mën nga woote 77 538 03 50 sama gaal TV ñëw xool débutants yi nu mu fa demee kon ñu dem xool bergerie Lamp Fall autour des débutants. waaw mbokku Samagal TV mm. mbokku internet yi ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen baalu àq wax ni nag euh, yéen a ko doon laaj ñëw na autour des débutants. Mm. seen émission autour des débutants nag euh, tàmbali na parce que euh, am na ñu bëri ñu ko doon wax ci eh, commentaire yi laaj gars yi kañ ñuy dem ci débutants yi tey nag maa ngi fii ci Sébi Xotaan. macha allah seet fi benn passionné élevage. Mm. nekk nit koo xam ne dañuy daje ci foire yi mu ngi càmm. nekk un débutant tout maa lay nuyu. waaw Ah, di la rafetlu sa teewaay. Mhm. di la fay di ñaan Samagal TV yal na yegg fu kawe. macha allah waaw ah, di rafetlu teewaay bi déplacement bi. Mhm. waa vraiment nekk na mbégte boo xam ne moom lañu neex la ko quoi. Mhm. yàgg nañ daje ci foire yi comme ni koy waxee rek. waaw ah, mais tey la ko la dogal quoi. macha allah macha allah euh, nekk fii ci euh, càmm ak lan moo tax nga bëgg ko. waaw càmm yi dañu nekkoon ci ordinaire yi. waa biñ ci nekkee euh, su ma su ma juumul jour ñu toog ci YouTube bi. c'est une euh, émission gétt mhm. ñu euh, Diallo invité Harim Olam présent Olam mais après affaire bi trop waaw ñu xol ñu ne pourquoi pas ñu dugg le même jour ci lañ décroché ben Mal ben jeune mâle décroché ben jeune femelle ci même jour parce que affaire bi neex nañu mais ñu dugg après gis ni am na réussite daal. loolu moom war ñu remercier Fall Molam bu baax daal. parce que bi ñu ko xoolee moom li tax ñu dugg ci laadum moom ci la bokk. moom ci la bu rëy bu la sax. Euh, Modou a dëkk Sébikotane. waaw si la maa ngi juddoo Pikine ñetti mbaar. mais fii laa defee bientôt def naa fi dix ans. ok ah. léegi après loolu loolu moo tax nga dugg ci. wa loolu moom moo tax dem uti femelle ak lan. ci la dem outil benn femelle. ok euh dem outil ben jeune mâle. ci même jour boobu. ni ñu teg deux jours ma décrocher ben beneen femelle. ci 3 3 recrutement laa defagum ci 3 jours yooyu. kon da nga toog seetaan télé rek. mo tok seetaan ko émission bi rek ma impression bi ma jug dem defi ji ci guddi même jour bi ma wootee mâle ma njëkk a liggéeyee la won dama ko envoyé dañ ma ko envoyé ni ma xoolal soit ma def soit muy muy super jamono. ma dem dugal ko bi am trois mois. ok waaw mais du daal di dugal benn benn femelle. ok moom tamit daal di dugal beneen femelle. ok ñëpp même génération trois mois trois mois daal la. 2020 ci moment Covid bi quoi. moment Covid bi waaw moment Covid bi waaw. ok léegi ba nga léegi nag fan fan nga toll ak lan nga fi yor fii. waaw ak léegi nag 2020 euh, ak léegi liggéey bi avancé na foofu bu baax. Mhm. parce que après super jamono bi mu fi nekkee. Mhm. def six mois am. Mhm. ci la taawlu. ok benn benn benn bu jigéen. ok mais kooku dañ ko joxe woon. mu defaat production am ñëw tegaat benn jeune mâle bu ñuy wax Ramadan. Mhm. ñu joxe ko aussi tamit. Mhm. daal di dem jëlee ji benn famille bu ñuy wax Daaru Salaam Kër Massar. Mhm. mais Daaru nañ ko fan yi sax passé. après na ci lañu affaire bi gën a neex ñu liggéey travail ba gis jamono li muy produire. après mu doy ñu quoi ñun lañ liggéey ci moom continuer. après na ba bientôt la ñu defaat recrutement bi daal. ah ngeen defaat recrutement ci lañ defaat deux recrutement. macha allah waaw mais jamono daal satisfaire nañu daal jamono moom nga ne moom mooy kan mooy ah. super jamono quoi benn surtout Cheikh Diop dañ ko génne ci tabaski bi quoi waaw dañ ko génne mais bàyyi na fa ay suusam bàyyi na fa ay suusam macha allah mhm. euh, nga def recrue waaw ci laa euh, jóg daal uh-huh. waa xam ne élevage bi day dox loo ci gën a nekk rek da ngay xool étape bi nga toll nga utiliwaat niveau bi nga yeegul waaw ci lañ jóg dem recruter culul bële waaw culul bële sangu saalum la ak dóom jéemi ci lañ ko dem jëli ji yàggul dara ñu daw daw tamit moom it dem jëli jiwaat kii. kii kii taxaw moom it nekk kii mooy euh, kii ay wéyante waay waaw ah, Yacine Bouba moom dañ ko jël ci grand champion bu mag ñu koy nuyu de passage ah, di ko wax Bathie Dieye parce que ñi ko bëggoon bëri na trop mais ñun bu ñu ko bëggee ah, def na ci xeewal daal waaw def na ci xeewal moom nekk ci sang Amadou Mbodj Amadou Mbodj waaw papaam mi ngi jugale woon bergerie Noflaye bu Lamine Diagne fa la papaam jugee woon moom ñaata moom fi mu toll mi ngi ci mi ngi ci deux ans moom fi mu doon moom mi ngi musul porté mi ngi door a porté ci man mi ngi door a porté waaw mi ngi door a porté kan euh, benn maal bu ñu exposé ci foire bi sang bi laa fàtte mais na ci foire exposition bi avant tabaski bi. avant tabaski parce que si bi dañu defoon benn exposition avant tabaski bi. parce que fa ko gisee mu intéressé ma trop. Ah, euh, mu tëb ko mu daal mu tëb ko daal dafa daal tëb bi. Ah, wàccagul waaw waaw ñu ngi xaar résultat am daal waaw ñu ngi xaar. Ah, kon moom mu nekk recrue tamit. waaw bëgg jënd ay femelles yoo xam ne. femelle de qualité de qualité waaw parce que dañuy wax rek. Mhm. soo doxee ci benn étape bu mu yàgg da ngay dem xool lëkkaloog champion yi mag yi nga jéem a yegg fi ngay fi ngay fi nga bëgg a yegg mhm. moo waral ñu dem song ko waaw yàlla def ci xéewal nag. Mm-hmm. waaw waaw moom fi ci phase boobu daal la ñu toll. macha allah waaw phase boobu la ñu toll ah? di xaar mu wàcce waaw di nag. moom yaakaar daal bu baax a baax. Yacine boobu waaw nekk ci rek léegi la may indil. waaw bi. yóbbu ko dugal ko léegi léegi nag euh, muy indi ummi. Mm-hmm. léegi instant bi 2020 ak léegi. Mm-hmm. Euh, nga nekk ban étape nga toll. waaw 2020 ak léegi moom liggéey nañ mais dañu concentré woon ci super jamono. waaw doon xaar mais bu ñu doxaatee ah, xam nañ nekk na mën na ko mën. كلين داو اوتي جي وات بنزين مال بلي دي سان ماجستراك عبدو فال مومن ني ام تي مومن ياكار بو باخ اوكي واو مومن بنزين مال بو مومن بريبار ني باسكو ني داني بيغ دي فارال دي ليغي تي جين مال نداوي اوكي واو باسكو موم موي غنا مانا تاخ دا خام دال لي تي موي لان جين مال بو سان عبدو فال بي اك ماجستراك مومن دا مكو ريغريتي سي ميم موا بوبو باسكو سي موا بي دا ني داني جوغندو رك اوكي واو واو جوغ دال وانا اه با غيني جيري سيمل بي واو كلين لن جيل سين مال بي اوكي واو لن جيل léegi euh, curul baa ngi waaw curul bi moo nekk nii muy ummi ah. di sa sama bërëm njéeme côté yaay côté papaam côté yaayam Saalum mhm. waaw côté yaayam Saalum moom it suñu grand bu baax Alaaji Sarr di ko nuyu de passage waaw moom moom vraiment li may wax rek uh-huh. gars yi moom des fois seen alal ñu koy bëgg dañuy bëri mais man bu ma soxlaa ñëppay ah, moom mu ngi jóge Pikine recrutement Pikine laa ko defee. ci ban bergerie euh, bergerie Alaaji Sarr. mais moom defu amul def lu mbaar la yoroon. waaw ah, waaw macha allah waaw ah, mais champion la nag moom moom. moom it euh, actuellement porté na fi moom mi ngi deuxième porté bii mu yor nii mooy deuxième porté. mooy deuxième porté am. macha moo ko tëb. moo ko tëb dafa indaale porté ah, moom mi ngi ci trois ans moom it moom it waaw am moom mu beneen phénomène boo xam ne moom moom dafa ñëw dañ ko recruter moom moo ànd ak porté ñu ngi xaar moom tamit ñu mu wàcce macha allah loolu tam wàcce nekk ay fan yoo xam ne fan yoo xam ne yu am différent daal waaw yaakaar nañ ci daal gis ñu leen ummi quoi ñu ngi ummi waaw maa ko tuddee ummi sama benn jarbaat moom laa ko tuddee ok léegi noonu mu nekk ci bu rafet mhm. dugal ko après ku léegi mën nga di mën nga indi faama faama mhm. mooy euh, faama blanc bu le mhm. léegi instant bii euh, lan lan lan nga bëgg a liggéey lan moo lan nga visé. waaw fi mu toll nii moom li ñuy wax rek borom bitigu mbagg bu ne boo xotee xol magasin mag nga ciy fekk. Mhm. dañu ñaan yàlla yegg fi gars yi yegg. bu ñu ko mun nit nañ fa taxaw ci benn niveau boo xam ne daal. Mhm. waaw incha allah daal bu ñu ñëwaatee ci 2024 bi. Mhm. waaw am naa yaakaar ne dañu gis leneen lu bokkul ak lii daal. ok waaw ñu tànk yooyu daal. waaw ñu ngi dem foire. non mosuma dem foire dafa yàlla dafa ah, dogal bi may dugg ci élevage. ma amoon problème pièce d'identité mais yàlla suñu borom dogal na léegi eh, sotti na am naa ko dafa réeroon quoi léegi am naa ko kon am nañ yaakaar ni daal war nañu mën a bokk ci ñu ngi koy jéem quoi incha allah waaw ñu ngi koy jéem kii mooy faama mhm. bokk ci san raan sët sët ci grand raan mhm. waaw moom mu ngi ci troisième portée waaw parce que benn bi moo taawle woon ramadan ñëw teg ci kumba male après daal di ci tegal beneen porté quoi am na benn jeune mal bu mu fi bu mu fi feral waaw moom mi ngi ñu am ci moom yaakaar trop parce que 2020 la fi ñëw. bientôt waaw. waaw dama koy recruter mi ngi à l'âge de mois laa ko recruter. ok suma grand bi nekk fii Bàcci Dieye. waaw ay moom ay doomam ñu ngi ci biir. moom nag yàlla dafa doon dafa doon semaine bu barkeel. parce que lu mu wàccee gars yi dañ koy yóbbu. Ah. waaw lu mu wàccee dañ koy yóbbu quoi. Ah, actuellement daal dama bañ téye fi doon doom bu jigéen. ak doom bu góor quoi di xaar quoi. mais ba tey gars yi wuñ ñu. ok waaw man moo tudd Fama. waaw moo ko suma benn doom. añal la fi ñëwee. waaw añal la fi ñëwee. moom super jamono la njëkk a taaw lool. ok waaw moom la taaloo super benn benn tëng añal bi ñuy wax Ndey Diop. mais boobu dama ko ci la ñu ñëwaat teg Ramadan après tegaat ci Siteu quoi benn jeune mâle. moom mi ngi ci biir. mi ngi ci biir mi ngi ci biir. instant bi tëbagul na. moom instant bi tëb na. dañ ko croisé woon ak euh, landing mooy jeune mâle bi sànq Abdou Fall ba ah. la. waaw moom la ñu joxoon mu liggéey ci moom quoi. waaw moom ñu ngi xaar quoi. yóbbu ko macha allah yóbbu ko. indi ma yaay yaay jamono waaw. yaayu kan waaw eh, yaay super jamono quoi moom dama ko recruté super jamono moom dafa nekkoon loo xam ne moom eh, yaayam moom moom bi ma koy recruté trois mois laa ko recruté ah. ma indi ko fi defar ko fekk ana yaay ji ay yaay ji mi ngi ne la ci biir waaw yaay ji danga ko fa dama ko fa bàyyi woon ba mu ah. dem ba porté ma dem ma dem ma dem jëli ji ko moom it waaw bi ma demee xool ko non moom da nga super jamono mu nekk xale nga bàyyi fa yaay ma bàyyi fa yaay ji téye ko ba yaay ba mu fer. fekk yaay ji boobu jënd ko. boobu jënd ko ma yaayam. ba yaay ji nag jour tam xaritu 2020. ci lañ ma ko nangoo jox. ma jëli ma jëli ji ko indi ko mu ñëw porté mu wàcce fi benn doom bu jigéen. mais doom jooju après moom it li ñuy wax rek gars yi ko nangoo. Ah. vraiment moom it actuellement nii def na fi tamit moom oke, ay preuve am quoi. ok waaw waaw gis nañ ko daal yaakaar nañ ci moom parce que yaakaar tax na doon jëriñ ko quoi. moom super jamono ak kan la fi am. super jamono la fi la fi ñëw moom la fi am ak Thiat. Euh, Thiat dama ko croisé woon ci jamono. ok mu jur noir blanc bleu quoi. mooy bu ndaw bi waaw bu ndaw bi waaw. ok waaw ma def couragement boobu ci ñoom ñaar quoi def sans fixe bi quoi. Mhm. waaw. moom mooy grand mère laa ko tuddee quoi. waaw grand mère comme moom mooy ndeyu gétt gi. waaw ñu tuddee ko grand mère quoi. macha allah ok. léegi ñuy defaat koy indiwaat. waaw indi di Yandé Codou waaw. ku ñu neexoon rek ñu xool ko rek moom it tuddee ko Yandé Codou seen suñu maam moom ci recruter débutant bi quoi. waaw mm, ah, waaw moom it dafi ñëwandoo ak jamono ak faama mm. Yandé Codou moo ñëw nii waaw ah, Yandé Codou moo ñëw nii waaw moom dafa moom it mi ngi mu mi ngi ci porté mi ngi mi ngi ci deux na waaw ah, moom it dén moom it bi mu fi ñëw trois mois la añal laa ko recruté moom it moom ko recruté quoi fu mu jógee woon moom maa ngi ko jëlee woon euh, Pikine moom tamit parce que su bi may départ sama suus bi ci bëri dama ko séddoo deux Pikine deux Sébi quoi noonu noonu laa ko demee woon quoi mom suma ben xarit bu baax tamit jibi moom ma ko joxoon quoi. mom moom ñaata moom actuellement ni mi ngi ci trois ports rem mingi trois portes yëpp fii la ko amee waaw yëpp fii la ko amee waaw trois portes yi trois portes yi ñu ngi si biir benn bi moom moom lañ joxe mais actuellement deux yi laa gardé waaw deux yi laa gardé quoi joxe nga benn waaw joxe naa benn bi quoi gardé deux yi quoi ok waaw mais actuellement moom it teg nañ ko ci jeune mâle bële jeune mâle moom ñaata moo la jeune mâle mi ngi ci sept mois ci la commencé waaw ci la commencé tëb parce que man damay faral départ ci sept mois yi quoi ñoom ñoom confirmé nañ confirmé nañ quoi macha allah waaw confirmé yaa nekkoon ak beneen bi ak waaw kon moo war a tëb ñu fi nekk waaw fi mu ne moom moom laa bëgg a préféré mu liggéey beneen a ngi fi Oke. mais moom mii dañu gën a visé daal actuellement nii quoi ok waaw ah, actuellement yaa ya. nekkoon dongo après ah. mu ko mu indi kan voilà Aliou indi indi eh, landing Landing mooy kan. Landing mooy jeune mâle jeune mâle waaw ah, mooy jeune mâle mais léegi noo gisee càmm gi ak fan nga toll est-ce que mhm. ça va yaa ngi ciy génn wala noo ko gisee quoi. waaw càmm gi moom est-ce que gis nga ni avenir quoi. waaw càmm gi moom vraiment macha allah quoi. gis nañ ci suñu bopp. ñu ngi ciy sant yàlla bu dul dara sax passion bi ñu ci duggee. ak engagement bi ñu ci duggee moom moo waral ñun daal dañ ko bëgg daal. te incha allah daal am nañ ci vision bu yaatoo yaatu daal. ok waaw am nañ ci vision bu yaatoo yaatu quoi. macha allah waaw am nañ ko ci daal. yàlla baax na waaw yàlla baax na. bi nu mu fi demee. waaw sëb moom sant yàlla quoi sëb moom vraiment yàlla paie quoi sant yàlla quoi. Mm. moom moom. bergerie ba rek gars yi pratiquement nag euh, niñ ci comme que dañu nekk ci beneen domaine di ci yëngatu ni ñu war a génnee génne wuñ ko mais ñu ñu xam. Hmm. saa su ne bu ñu jigee ñu ngi ñëw mais daal gën a bëgg gën nañ bëgg a lancer waat daal incha allah waaw mais am na ñu ñuy rencontré daal yoo xam ne ay champion lañu. waaw ñu ñu ñu ñu bàyyi xel. macha allah waaw kii moom kii moom moom it ma koy recruter. Ah. ci àll 4 mois laa ko recruter. ok 4 ah, 4 mois jour màggal Porokhane bi février bi 5 février. Ah. laa ko recruter daanaka lu mu mel ne ci man la ko melee eh, ne ok waaw waaw moom it ñu ci yaakaar bu baax. ok waaw di sànq Abdou Fall ak magistrat. waaw moom it moom it recrutement Pikine la jógee woon moom daal moom laa bàyyi mu tëb quoi. ñu xool. waaw moo set. waaw waaw waaw fi daal moom ñu ngi xaar quoi. waaw ñu ngi xaar résultat am quoi. ko jël waaw parce que bi ma man ci ma koy gis ci photo laa ko gis. Mhm. waaw mais mu doy waar trop. ba ma demee ba tiim ko la mu joxe ci photo bi moo ne ci moom. ma xam ne kon kii critère bi may wër dëgg ci moom. naa ko jël te aussi gis naa papaam gis naa yaayam. ma xam ne xëy na kii tey li ma fu ma fu ma war a yegg. moom mii dina ci dina ci am part de responsabilité quoi. Mhm. moom moo waral ñu doon jëriñu ko. macha allah euh, landing waaw nekk loolu ñu am ci moom yaakaar trop quoi. ñu moom yaakaar. macha ñëw. allez indi beneen bi. mooy kan mooy Thomas Sankara. ok foofu fii moom moom it ko recruté woon waaw. ok da ko recruté woon dañu dañu kii woon doo songo doo ñaari jeune mâle. moom it dañ ko recruté waaw. mais waa recrutement rek. waaw métti na woon na woon mais xam nga li ñuy wax passion bi moom bu nekk ci yow moom. Uh-huh. waaw méttiwaay bi doo ko gis quoi. ok waaw doo ko gis doo ko gis. noonu la affaire noonu la gëm-gëm la ko xam nga recruter doo plus de cinq six ci benn mois. waaw waaw yombul. waaw ah, ok voilà. ñaari jeunes mâle ak ñetti femelle. ak ñetti femelle waaw ñun ñu recruter doo moom it suñu grand bu baax euh, jox ñu ko ñu am moom yaakaar trop sax. ngi ci 4 mois et demi. Thomas ya? ya, ya, Sankara quoi. Thomas Sankara ko Thomas Sankara waaw. ok ngi ci 4 mois et demi. waaw moom ci roi ñu bëgg am def ci ko mu quoi. ko mu dañ ko dañ ko ci pour préparer di xaar di ah. xaar landing di ah, xaar landing xëy na ay doomu landing lañ ci bëgg croiser daal ok waaw ah, lañ ci bëgg croiser daal ñaar mois la moom moom mi ngi ci quatre mois di neen quatre mois di neen waaw mois yi di neen muy Thomas Sankara waaw waaw muy Thomas Sankara macha allah muy Thomas Sankara macha allah waaw Thomas Sankara mi ngi noonu léegi jox waaw Mara suuf fi jamono doomu jamono waaw doomu super jamono la waaw actuellement mi ngi ci mois waaw doomu super jamono la macha allah waaw ah, moom ci lañ fi bàyyi la quoi. moom yaayam yaayam sama dama ko joxe woon. doomu super jamono la waaw ah, doomu super jamono la waaw. moom ñaata mois. moom mi ngi ci 4 mois. 4 mois waaw mi ngi fi bàyyi comme fi bàyyi. parce que vraiment moom. maal la woon boo xam ne moom. Mhm. waaw def na fi liggéeyam daal. Ah, def na ko liggéey bu am solo moom mi ngi man quatre mois nga moom waaw moom mi ngi ci quatre mois am fi mu toll nii waaw moo tudd lan moo tudd Mara laa ko tuddee waaw Mara parce que ki ma joxoon famille bi yaayam uh-huh. moom laa ko delloo tuddee ko Mara moom maa ngi ko recruté woon fii aussi Sibuxtaan fii ok moom maa ngi ko recruté woon yaayam moom yaayam euh, mi ngi ci biir fële quoi génn moom génnul mu ko joxee la mu ko joxee woon quoi moom génnul macha allah. Ah, rafet na delloo léegi li ñuy def euh, lan. da nga bëgg mën na boole yële rek comme ni nga ko waxee rek. waaw na ñëw um leen. Aliou Aliou ndaw yëpp. waaw ah, Siteu tamit mi ngi fi moom it moom waaw Siteu xëy na. Siteu ah, ah Siteu doomu jamono la. waaw mhm. bokk na ci li mu fi bàyyi moom it. waaw li mu fi bàyyi moom moom it ñaam koy am ci moom yaakaar tuddee ko cité bu jàmm gën. ah ok ok waaw waaw moom it mi ngi ci trois mois. trois mois waaw moom mi ngi ci trois mois. ok léegi est ce que yéen instant bi comment am ngeen fi association wala nga bokk ci benn association. waaw bokkoon na association bu Sébikotane bi. waaw mais boobu moom ñu ngi ci waaw mais actuellement ni moom ñu ngi ciy sori bu baax a baax waaw ñu ngi ciy sori a baax parce que moment wu tabaski bi organisé woon nañ benn exposition mais ak ñun xatee woon ci liggéey bi moo waral demoon ñu woon participer quoi mais xëy na bu ñu fi yàlla bàyyee déwén mhm. bëgg nañ ci participer quoi ok Siteu la waaw waa moo nekk doomu faama la mooy famille robe blanc bu le ak euh, jamono ah, jamono waaw ak jamono waaw moom ñaata eh. moom fi mu toll moom kat moom mat na sëkk moom. kat moom kat mat na sëkk waaw. macha allah waaw moom it bokk bokk ci lu ñu bëgg a daal xool quoi. ok production bi waaw yi moom après jël baal léegi. Uh-huh. li moo fi nekkoon léegi li ah, moo daal moo fi nekkoon mu réussir daal waaw réussir nga war a préparer pour nga war a préparer lan mooy sa ambition liggéey ci càmm est-ce que da nga def ay opération tamit wala yooyu wala da nga bëgg a dugg ci càmm gi pour être un champion wala waaw ñu ngi si loolu yëpp ñaar yëpp la bëgg boole ah, parce que càmm opération tabaski moom ñu ngi si woon ci ba ñu nekkee ci ordinaire même ren sax am na yu mhm. mais ren moom déwén incha allah bu ñu fi yàlla bàyyee bëgg nañ ci samp bu baax a baax ci opération tabaski bi mhm. ah, ba pare nag doon champion tamit ci li ñuy yëngu nii tamit mhm. parce que ñaar yëpp daal la bëgg a boole mu doon projet quoi. ok waaw mu doon projet. macha na. yàlla baax na léegi euh, bala moo benn étape bi da xaar xaari produire xool ñu wàcce wala da nga nekkaat ci ba léegi di ut. waaw fi mu ne dañu bëgg taxaw stand by. daal di xaar li ñu indi mooy lan. ak li fi landing def ak famille li fi ñëw li ñu fi ëndaale waaw ñu daal di ñu daal ba ñu wàcc ñu daal di xaar bu jëree ñu yokkaat loxo rek ñu yokkaat loxo bu ko jëree ñu kiiwaat liggéeyaat ba ci kanam quoi hmm. waaw liggéeyaat ba ci kanam léegi la est-ce que tey. bëgg nga def comme gars yi def ko moderne wala mooy. da nga bëgg a liggéey tëru ko rek. non ñu ngi ci projet boobu moom tamit. Hmm. xam naa ne ñu ci kaw nii bu ci yàlla dimbalee ba paree. waaw xar yi jëm ci kaw dinañ ko gën a amélioré bu baax a baax. comme gars yi ah rek di xaar. parce que eh. gis nañ li ci biti. Hmm. xam nañ xam nañ li ci biti. Eh. kon doom mel ni ñoom daf ñu war quoi. waaw moom loolu moom ñu parce que lii provisoire la woon nii rek. parce que bi ñuy débuté en 2020 ba xam ne xat na foofu ñu yokkaat te xam naa bientôt incha allah dinañu yokkaat fii tamit incha allah waaw su dañu booleen poulet de serre bi mais gis nañu serre yi xar yi nangu nañ ko waaw waaw moo tax léegi il fallait que dañuy dem ci kaw rek waaw demee ci kaw nag ah, liggéey bi dina gën a amélioré wu daal incha allah dina gën a amélioré wu yàlla baax waaw mais kontaan naa de mm-hmm. kon euh, la nga wax gars yi euh, oui oui. lan ñu ngi lu émission bi di wax ne gars na ñu jàpp rek bañ a bàyyi. waaw xam ne affaire yi moom yombul. waaw nañ ci nekk bu baax a baax métti na nag. mais bu méttee rek bu ci passion bi jiite rek dina baax quoi. te aussi tam ñuy lancer benn appel quoi. waaw di wax ne càmm yu ndaw yi nañ ko booleeg métier quoi. waaw nañ ko booleeg métier. parce que dinay tax la ngay la ngay dundalee xar yi ko yëg. Ah. mais bu ñu visé woo toog rek di séntu gars ni gars yi ñu ngi jaay ay millions dañ ci war a dugg ñu ñu jaay ay millions kon lu xari lekk dina jafe mais bu la yàlla dimbale na nga yëngu ci dara nag lu mu doon baax mais bul toog rek basé wu ci xar yi man loolu laay lancé gars ndaw daal ba ëllëg boo jugee dinañ xam ne kat préparé woon na boppam mais boo toogee dégg si sa jaay jaay na xaru cent millions te yow mënoo jaay xaru cinquante hmm. kon day métti ci yow trop waaw da ngay jug nag yëngu ci dara waaw ba loolu dara fekk la ci quoi loolu laay lancé quoi waaw di ci wax ni nag ci sonal sonal naa waa kër gi trop ci xar yi waaw surtout maire bi aussi tamit des gis nga yi may wàcc yeewoo démb heure boobu laay wàcc kon tey bu ñu ma doon xaar xar yi du ñu lekk booy démb ñoo sang ñoo def lépp kon tey ñooñu oma seen fay waaw di leen liggéey bu rafetee rek ñoom la ñun duñ ci dara ñu dem liggéey indi rek joxe lañ ci ñoom ñooy toppatoo lépp quoi waaw di wax daal kontaan nañ trop waaw kontaan nañ trop xëy na di jox rek ay rendez-vous rek waaw di leen wax ne xëy na bu suñ prochaine sortie hmm. ah dinañ gisaat loo xam ne tey hmm. lu am solo lay doon daal léegi kon mu joxe numéro bi bi rek waaw euh, bergerie nekk bergerie Lambaal mi ngi nekk euh, sebi Sébikotane école derrière école Sébi Coxo hmm. numéro téléphone bi di 77 191 79 55 70 939 50 59 waaw di wax ne loolu mooy adresse bi quoi waaw ku ñëw ci station totale Sébikotane bi moom foo laajte Modou Souleur waaw dinañ ko gën a xam parce que bergerie bi gars yi miinaguñ ko mais mais bi gën a wóor daal moom moo di Soudar boo ko waxee rek Sébikotane ah, waaw Soudar gars yi dinañ la indi quoi incha allah incha allah kon mbokk Samagal TV autour des débutants mi noonu képp koo xam ne yaa ngi mu nekk passion ci yow nga nekk un débutant bëgg dem fenn bu la woowee waa Samagal TV ñu ñëw xool li nga benn xar ñaar ñett xeebuñu mais chaque fois rek nit am na fu mu war a jógee pour dem feneen kon yoon la ñu mën leen ñëw seet ba ëllëg bu ñu ñëwaatee fekk nañ ci beneen nit ñu mën ko wane kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf